na rek ginnaaw incident yi nga xamante ne nemmeeku woon nañ ko fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bi ñu génn soxaloon procès Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko bureau national bu Pastef les patriot nag taxaw tembe ngir ñaawlu mbir yi nga xamante ne ute naag loola lu démocratie nangu. que tout ce qui arrivera. ak lépp lu nga xam ne daal moo nar a dal Ousmane Sonko. ci li nga xam ne kat moo tukkee ci 16 mars ci procès bi nga xam ne moo doxoon ci diggante moom ak Mame Mbaye Niang loxob njiitu bi daal génnuñ ci ak it ki nga xam ne mooy jëruñam yor wàllum kaaraange gi ñoom ñi nga xam ne ci terrain bi ñoom ñooy joxe ordre yi. sur le terrain. incident bu fukki fan ak juróom benn ci weeru mars bi ñu génn moo gën a bees benn weer ci ginnaaw nag méngoog fukki fan ak juróom benn ci weeru février 2023 convoi bu leader bu Pastef attaqué woon nañ ko nag bu mu tollee woon ci tunnel bu Soumbédioune Pastef nag jàpp na jamono ji wérgu yaram bu seen leader bi di Ousmane Sonko jéggi na dayoo bureau national bu Pastef nag di bëgg ñu delloo ko nu mu gën a gaawee passeport am ngir mun a dem bitim réew ji. Voilà pourquoi le lii nag moo tax parti bi jël waaye lépp lu nga xam ne dafa yelloo rek ci nga xam ne daal mooy carré Ousmane sonk waaye tamit ñu jot ko évacuer fa nga xam ne moo ci tugal waaye lépp daal tamit ñu lëkkaloog ci ñi nga xam ne ñoo koy loyal li nga xam ne mooy gaz bon bii nekk ca moom mu mën a dañ te sax maître Clédor moom jot nañ ko waa euh, yóbbu fa nga xam ne mooy France ngir ñu mën koo faj. jëye yi amoon ci ginnaaw nag ñu weesu ko Pastef di woo militant yi ñu gën a ñoŋal lii di mobilisation bi taxaw tembe jaamarloo ak nguur gi fas yéene nañ itam jébbal ay lettre information autorité administrative yi ngir ay marche pacifique yu ñu namm amal xeex benn yoon li ñu duppee persécution jëmale ko ci seen leader